gunge leen ma ma lire communiqué bi ñu daal di tàggoo. kon euh, mu nekk communiqué bu directeur général bu APS mooy euh, agence de presse sénégalaise euh, comme c'est nous dans nous comme presse bi tey moo am nakar ma lire ko donc l'objet de la lettre c'est une lettre de compassion chers confrères et sœurs c'est avec consternation et tristesse que nous avons appris l'agression sauvage jeudi soir de notre consoeur et directrice de la chaîne de télévision privée 7TV, Madame Maïmouna Ndour Faye, le directeur général de la Société nationale, agence de presse sénégalaise SNAPS, et tout son personnel dénonce cet acte ignoble qui ternit l'image du Sénégal. La direction générale de la SNAPS vient par la présente vous transmettre toute sa sympathie dans ces moments difficiles. Par la même occasion, nous formulons d'ardentes prières pour un prompt rétablissement et surtout un rapide au travail de notre consoeur Maïmouna Ndour Faye nous vous assurons chers confrères notre sympathie et cetera kon mu nekk lettre bu am solo bu ñu directeur général Thierno Amadou Sy mon frère di ko gërëm ci moo yu am solo yi di fàttali rek ni rendez-vous bi 17 heures la fii Buntu 7 TV le rendez-vous bi mu nekk presse bi moo woote dress code yére yu ñuul la ñu bëgg sol pour wane sunu naqar ak agression bi nga xamante ni du nit ki lañu ñu agressé mais profession bi la ñu agressé ba tax na tey 7 euh, 17 heures daañu fi euh, daje di laaj waa régie kon euh, ñu dugalal ñu élément ma joxe antenne bi Maria def naa mooy jël la relève donc di leen wax rek que ni l'édition spéciale se poursuit à travers la 7TV di gërëm yëpp